jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi déglu rajo réew mi FM quatre vingt point cinq seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu quinze heures jotee jàpp seize heures ñuy jéggalu bu baax a baax si euh, minutes yi nga xamante ni moom moo jot a dem ngeen di sànd ak seen mbokk Abdou Khadre Seck Adama Diallo nekk ci wàllu technique bi. ñuy nuyu bu baax sunu mbokk auditeurs yi ak sunu mbokk euh, auditrices yi di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi nag euh, tey ñu dellu am mbégte daal di dal euh, docteur Amadou Ba. mu nekk fonctionnaire à la retraite nekk ancien directeur d'hôpital ba pare mu nekk correspondant du REFIPS ci Afrique moom la ñu invité tey docteur Amadou Ba ñoo ngi lay nuyu. jërëjëf Khadre di la sant di la gërëm. di la remercier également ci invitation bi nga xamante ne bi defal nga ma ko. Mhm. pour nu waxtaanee. waxtaan ak askan ak askan bi euh, yow nga nekk correspondant du euh, REFIPS en Afrique euh, ndax mën nga ñu si dellu si tuuti ci présentation bi pour ñu lay déglu gën la mën a xam. waaw REFIPS c'est le réseau. Mhm. international. Mhm. pour la promotion de la santé en Afrique. en Afrique. ki ko ki ko ŋànk mooy la francophonie. la francophonie su ne promotion de la santé nag mooy lépp loo xamante ni day suqali li nuy wax wér yaram mm-hmm. en terme d'éducation pour la santé comme li ñuy def nii. Mm-hmm. en terme de prévention. Mm-hmm. mais également en terme de communication tout court. waxtaan ak askan bi ci lépp loo xamante ni dina suqali wér-gu-yaram. jërëjëf euh, docteur euh, Amadou euh, Ba beneen bi tamit nga nekk fonctionnaire à la retraite nga nekkoon ay jamono directeur hôpital. Euh, ndax tamit mën nga revenir tuuti un peu ci loolu. waaw bo euh, jiite naa ay hôpital fii ci Sénégal notamment Kolda ak Fatick. moom mooy mm-hmm. hôpital bu bees bi. Mm-hmm. Euh, nekkoon naa également conseil technique fi nuy wax direction des établissements publics de santé mooy direction boobu nekk ministère la santé te yore lépp luy hôpital ci Sénégal. Mm-hmm. ma nekkoon fa conseil technique du directeur. bon fonctionnaire la à la retraite c'est parce que depuis 2018 mhm. alors nekkatuma ci fonction publique léegi ci ñàngale rek ak gëstu mhm. li jëm ci wér-gu-yaram mhm. euh, ci laa nekk ci nga nekk euh, ñu ci euh, dikk sunu biir waxtaan euh, jamono ji nga xamante ne moom la ñuy waxee mu nekk jamono joo xamante ni ci àdduna bi yëpp ñoo ngi koy waxtaanee muy benn pandémie maanaam muy mbirum coronavirus mu nekk jàngoro joo xamante ni tey feeñ na ci àdduna bi te mu doore woon Chine mu rey ay nit ñu bare bare bare ci réew yu bare bari tamit ci àdduna bi réew yu bari tamit gis nañ ne amee nañ joojule jàngoro yow sa xel màcc ci jëm ci wàllum wàllum faj jàngoro jooju bi mu ne cëpp nga dégg ko Chine lan moo njëkk nekk sa sa réaction. Euh, tiit ak jàqare ni ñëpp tiitee jàq euh, sooy seetlu feebar la boo xamante ni bi Chine la gé génnee au mois de décembre mu xaw a jaaxal réewu Chine ba rey fa lu bari ci benn diwaan bu ñuy wax Hubei euh, plus précisément benn dëkk bu ñuy wax Wuhan Euh, dem nañ ba nga xamante ne bii euh, ñi ŋànk nguuru Chine euh, def dëkk boobu quarantaine maanaam kenn du dugg kenn du génn. Mhm. yéen ngi fàttali ko sax am na suñuy treize sénégalais ay étudiants yu fa nekkoon te mënuñu woon génn ndax ndogal boobu bi mu lore waa Chine mu presque law ci biir àdduna bi yëpp ba organisation mondiale de la santé tuddee woon na ko euh, une urgence mm-hmm. de santé publique de porté internationale su la nee urgence mooy lu jàmp su la nee santé publique mooy lii laal mooy mooy li laal ñëpp bàyyiwul kenn ñu ne nag euh, dafa law ba jéggi dayoo fi mu nekk nii tey weesu nañ sax urgence boobu léegi organisation mondiale de la santé mm-hmm. qualifié na ko de pandémie lan mooy pandémie épidémie tawat la boo xamante ni bii rek danga koy localiser ci benn bërëb ci benn moment bu kii loolu mooy épidémie mais soo demee ba ne pandémie nag moom mhm. euh, feebar bi law na ba nga xamante ne bii laal na gox yëpp yu bari laal du réew yi mais àdduna bi yëpp àdduna bi yëpp amul gox boo xamante ne bi ci réew bi mhm. euh, feebar bi mënu fa yegg euh, li waral feebar bi nag nu ne coronavirus doomu jàngoro bi la mais feebar bi dëgg mu ngi tudd Covid 19 maanaam feebar la boo xamante ni bi coronavirus moo ko waral te mu ngi génn ci biir àdduna bi ci mois de décembre deux mille dix neuf. Ah, mais coronavirus ak Covid 19 différence bi mooy. waa moom laa lay expliquer léegi Covid 19 bi mooy feebar bi mu ngi mel na nga ne paludisme coronavirus bi mooy doomu jàngoro bi mu ngi mel na nga ne mu mu plasmodium moom mooy euh, waral feebaru. Euh, feebaru paludisme coronavirus moom moo waral feebaru covid 19 hmm. léegi nag covid 19 boobu euh, law na ci àdduna bi yëpp ba organisation mondiale de la santé tuddee ko pandémie ñun fii ci senegal wala sax Afrique euh, ba ci deux décembre deux deux mars bi passé hmm. pratiquement réewu Afrique yëpp amul kenn ku ko ci amoon mais nu jékki-jékki rek mu surgir ci benn dëkk bu ñuy wax Égypte Égypte moo ko njëkk am fii. ci Afrique ci Afrique. après Égypte Nigéria am ci benn cas mais noonu à partir du 2 mars la ñu am suñu premier cas te premier cas boobu il faut que nu taxaw ci. Hmm. cas boobu cas importe la suñu la ne cas importé mooy cas boo xamante ne bi dafa jóge bitim réew ñëw. mu jaar ci aéroport d'accord docteur euh, Amadou Ba dinañu ñëw ci euh, ci Sénégal ak euh, ni mu ñëwee ak ci Afrique. Euh, yow sa xel ci jëm ci wàllum euh, faj est-ce que bi mu commencé Chine ñu gis ne ma ngi bëri Chine est-ce que yow jàppoon nga ne jàngoro la joo xamante ni tey fii mu yegg fii nii mu lawee nii ak ni ñu waxee moom la gaaw a mën a wàllee ndax jàppoon nga ne dina lawee noonu yow bi mu ne bi nga déggee rek jàngoro ji coronavirus nga dégg effet yi mu commencé def. mais bien sûr ma jox la benn misaal feebar yi nga xamante ni yi maladie yëpp la te mu nekk épidémie. Mhm. soo jëlee ñaar rek moo ci mos a génn moo si mos génn ci biir Afrique maanaam Guinée ak Congo Congo soo doon dégg mooy li ñu doon wax le viage sida Guinée mooy feebar bi génnoon en 2016 ñu tuddee ko Ebola su weesoo loolu variole ak choléra moo génnoon ci benn dëkk bu ñuy wax Inde ak Mexique mais gis nga su weesoo loolu. Uh-huh. presque téeméeri feebar ak juróom-ñaar. Uh-huh. yoo xamante ni virus la. Uh-huh. yëpp Chine la jóge ah bon bi àdduna bi nekkee àdduna ba léegi. feebar yooyu ma la wax su weesoo ñeent yooyu ma la cité. yëpp Chine la jóge te bi mu jógee Chine law na ci àdduna bi yëpp. lan moo tax mu jógee Chine. Euh, ak lan mooy tax muy law ci àdduna bi yëpp. mais li tax mu law ci àdduna bi c'est parce que doomu jàngoro la boo xamante ni bi ci ngelaw bi lay nekk. léegi lan moo tax muy jógee Chine. waaw foofu lay ñëw ak yow ci ngelaw li la nekk bi mu nekkee ci ngelaw li mu nuy wax chimpanzé xaw ma naka lañ koy waxee ci wolof ak dromadaire dromadaire mooy. Euh, euh, boobu là aussi xaw ma naka lañ koy <laughs> waxee ci wolof mooy daal euh, <laughs> mooy kii yooyu nekk Mauritanie la. je ne mm-hmm. sais pas comment on l'appelle en wolof chameau. Mm, chameau waaw chameau voilà gileem. Mm-hmm. ak ay euh, chimpanzé. Mm-hmm. ñoom nooy euh, presque les hôtes intermédiaires. muy feebar boo xam ne également euh, li koy lawal dafa gaaw parce que ñaari nit suñu jegeyoo rek te kenn ki am ko il faut mu wàll ko keneen ki te nee nan la bépp nit boo xam ne bi jàngoro bi am na ko mën na wàll lu mu néew néew ñaar ba ñetti nit ci réew yi nga xamante ni nag dafa am promiscuité nga xamante ni bii nit ñi dañuy tànqalikoo nit ñi dañuy forontante ak yooyu di laamiso ak yooyu foofu la transmission bi gën a gaawee parce que dañ lay naan feebar la boo xamante ni bii ci ay mala la nekkoon loolu la ñuy tuddee zoonose ci ci tubaab. Mm-hmm. léegi zoonose yooyu feebar la boo xamante ne bii nit ñi ak mala yi ñoom noo koy bokk. Euh, coronavirus bi nag muy virus boo xamante ne bi dafa gaaw ci àdduna parce que amoon na yeneen mais bii nag moom non seulement moo gën a gaaw mais moo gën a moo gën a soxor moo gën a gaaw voilà ci rey mhm. d'accord euh, non waxuma la ci rey que rey bi dinañ ci ñëw ah, mais moo gën a gaaw ci wàlle ci wàlle voilà mais soo ko comparé ak Ebola Ebola moo gën a gaaw a rey ak bii ka bii waaw mais bii nag la nit ñi gën a ragal ak ak Ebola. ka Ebola léegi euh, gis nañ ne jàngoro ji fi nga xamante ni tey moom mooy euh, Chine euh, bi mu fa commencé am na ñoo xamante ni tey jàngoro ji faat na leen foofu. Euh, nan nga jàpp ne moo tax Chine instant bi gis nañ ne ñoom dafa mel ni euh, bu doon tey xeex la mën nañoo jàpp ne ñoom ñoo ngi koy ñoo ngi koy réussir ci Chine te jamono ji ko Chine di réussir gis nañ ne euh, Italie tamit feebar bi ngi leen di faagaagal ma ngi faagaagal Espagne ma ngi faagaagal Italie bari na tamit fi nga xamante ni maanaam moom mooy moom mooy noonu mu mel ci yeneen réew yooyu ak noonu muy reyee nit ñi tamit lan moo ci sa xalaat ak ndax mos ngaa gis feebar bu mu reyee nit ñu toll noonu ci ci bitim réew. su weesoo la peste. la peste. su weesoo pes gisagunu feebar ba nga xamante ni bi nit ñi ragal nañ ko ragal bi nu ragalee feebar bi Ebola bi mu ñëwee. Mhm. ñëpp ragaloon nañ ko. Mhm. mais da ngay fàttali également am na yeneen feebar yoo xamante ni yi jaar nañ fi. Mhm. te yooyu yëpp presque foofu la jóge fàttalikul peste fàttalikul tuberculose tuberculose amoon na ay temps. ku ko am rek dañ lay euh, mettre en quarantaine mu amoon fi également lèpre mooy feebar yooyu doon jàpp yaram yeeg mhm. baaraam yeeg ak yooyu mhm. mu am également peste bi ma la doon wax léegi te li ko doon waral li ci gën bari mooy ay les puces mooy euh, mhm. mooy fel fel yi ak euh, ak les rats mooy janax yeeg yu ma xamul ak yeneen yoo xamante ni yu bari bari bari mën nañ ko fi citer ne suñ koy citer du xëcc ci émission bi doon mais jàppal na rek yooyu yëpp c'est des maladies virales li koy waral benn virus la virus nag benn la ci ay doomu jàngoro. Mm-hmm. parce que doomu jàngoro yi sooy xool mën nañ ci limb ci ñeent. benn bi parasite la benn bi champignon la benn bi bactérie la benn bi virus la bu ci nekk ak xeetam. mu ngi mel noonu nga ne kii pël bi la kii séeréer bi la kii naar bi la kii wolof bi la. léegi yooyu yëpp ban moo ci gën a gën a am dangar. gën euh, yëpp am dangar mais virus lu tax dangaram gën a tar c'est parce que dafa nekk doomu jàngoro bu gën a tuuti ba nga xamante ni bi euh, microscope ordinaire mënu ko gis il faut nga jël benn microscope bu sophistiqué bi ñuy wax microscope électronique même boobu aussi da ngay am chance bu baax pour nga mu ko ràññee ba mettre ko en évidence nga xam ne kii kat virus la d' accord d' accord euh, docteur euh, Amadou Ba euh, premier cas bi Sénégal euh, njëkk a am bi mu ko Sénégal amee lan moo nekkoon sa xalaat ci loolu. bi nga xamante ne bii ñëw na d' abord avant muy ñëw amoon naa ci xalaat. avant muy ñëw voilà avant muy ñëw amoon naa. précaution wala dara. il fallait être anticipatif. c'est-à-dire. Euh, être anticipatif mooy jël say motuwaay. Mhm. avant mbir mi di ñëw gis nga bi mbir mi ñëwee tëj nañ aéroport. pourtant mënoon nañ tëj aéroport avant mais bu boobaa mesure buy jéggi doyo la mais mënoon nga ko bañ a tëj mais nga jël fa des mesures de prévention yu gën a yu yu sévère maanaam ni ma ko waxee woon feneen mooy képp ko xamante ni kii jóge nga bitim réew bul xool ne sax Chine rek la jóge jóge na bitim réew su ñëwee fii rek day wàcc aéroport rek les service de santé bi nekk aéroport. Mhm. noo ko waroon def ay test suñ defee test xam ne yow laale nga ak joomu jàngoro bi rek dañ la waroon écarter mettre la en observation mais njuumte bi fi mu nekk mooy dañ doon jël sa température jël sa carte jël sa numéro téléphone nee la mën nga dem mais saa yoo yëgee dara ci sa yaram nga woonu mais jàngoro bi jéggi na day jéggi na boo xamante ni dangereux wala contagion bi gaaw na ba nga xamante ne bi mais nit ki soo ko bàyyi mu dem ci këram am na ñu bari ñu mu laal am na ñu bari ñu mu taseel am na ñu bari ñu mu laam euh, euh, defante ay laamisoo ak yooyu mais su fekkente ne feebar bi génn na ci moom day fekk na laal am na ay contact yu bari mooy li ngay dégg cas contact ak cas importé cas importé mooy bi jébe jóge réew bitim réew ñëw fi cas contact mooy ki nga xamante ne kii jóge na bitim réew mais mu am contact ak ñu bari ñoo xamante ne ñi ñu ngi ci réew mi ñu tudd leen cas contact. waaw mais mais euh, aéroport yooyu ngay wax noonu euh, est-ce que ñun euh, amoon nañ ay jumtukaay yoo xamante ni tey ñu la xoolee bu jàngoro ji nekkee si yow dañu koy xamal luñ ko am Sénégal ba léegi amugul lool. Ah, ok pourquoi ngay dégg ne pourquoi actuellement. Hmm. ngay dégg ne def nañ ay tests ñii wér nañu ñii amuñu jàngoro bi ñii am nañ jàngoro bi. jàpp mais mais boobu dañu doon def. dañuy def prélèvement. Euh, jébbal ko waa institut Pasteur ñoom ñu xool ko. mais fii nag du woon doon prévention. fii uh-huh. fii lan lay wax ne. Uh-huh. fii lan lay wax ne. Uh-huh. il vaut mieux prévenir que guérir c'est-à-dire xoddaku balaa ngaa lakkale. c'est-à-dire que bu boobaa du def ay prélèvement kon la ñuy def bu boobaa da ngay ku ñëw rek. da nga koy da nga koy defal ay tas mettre ko en observation. xool au moins. 48 heures. Mhm. wala 72 heures. Mhm. nga xool ndax dina développer feebar bi parce que feebar bi dafa am lu ñuy wax une période ba nga euh, une une une encore jàngoro ji mën na nekk ci sa yaram. Mhm. lu jëm ci fukki fan ak ñeent. te doo ko xam léegi sax nee nañ ñaar fukki fan ak ñeent te doo développer feebar bi yow doo ko mën a xam. mais day jékki-jékki rek signes ñi commencé génn. bu boobaa nag fekk jéggi na puisque période bi nga xamante ne bi moom la ñuy une période asymptomatique c'est-à-dire yaa ngi jàngoro bi mais développé woo feebar bi mais du tere jàngoro ji mën na génn ci sa yaram dem ci kii looloo waral ka contact yi bari. waaw loolu moo tax ma ne la euh, su dee tey par exemple day da ngay doog di wàcc si aéroport bi nga ñëw man buñ la xoolee ñoom mën nañoo bañ a gis jàngoro ji tànk defuñ la quarantaine nga am quatorze wala quinze jours. non bu boobaa waxuñu la quarantaine. Ah. mais lu ñuy def xam nga luy quarantaine. waaw mooy dañ lay ber. waaw dans ay nangami jour voilà gis nga quarantaine. dafa nekk benn tec benn technique ba nga xamante ni organisation mondiale de la moo ko définir. Mhm. quarantaine mooy dañ lay isole ci benn bërëb boo xamante ne bi yow rek yow yaa fay nekk wala yow ak ñi nga xamante ni noo yore feebar bi. rek noo fay nekk wala ñoo xam ne ñi suspecté nañ leen danoo yore feebar bi mm-hmm. ci diiru ñeent fukki fan mm-hmm. nga feebar nag wala nga bañ a ñàkk a feebar l'essentiel su fekkente ne tu en contact avec le germe rek mm-hmm. on doit te en quarantaine loolu mooy quarantaine ba tax na gis nga yaa ngi fàttaliku li loolu doon wax les grandes endémies yaa ngi fàttali également soo demee Rufisque wala feneen di ngay dégg ñuy wax Lazare xam nga hôpital Lazare bi nekk Rufisque biñ koy naan Lazare boobu foofu àll kese la woon. Mhm. du woon du woon hôpital du woon dispensaire du woon dara mais kaawu pest la woon tuberculose wala en tout cas grandes endémies feebar yoo xam ne dafa jéggi doyo nu jël leen yóbbu leen ci ginnaaw dëkk ba mettre leen en quarantaine c'est-à-dire di leen surveiller en même temps di di faj ñi nga xamante ne ñi amee nañ doomu jàngoro bi te te te te di manifester les si loolu mooy quarantaine Sénégal yàgg na def loolu depuis temps wu pes d'accord yow nga ne nga matukaay yu Sénégal waroon a jël avant euh, muy agsi Sénégal jàpp nga ne jëluñu woon matukaay yooyu euh, da foofu laay naan anticipation bi c'est-à-dire dañuy naan gis nga euh, wax naa ko ci say nattangoo yu bari dama ne lépp looy def ci àdduna ñaari mbir da ko war a sóoraale benn bi il faut être anticipatif mm-hmm. anticipatif mooy jël la chose en amont c'est-à-dire jël ko ci bi muy teel mais soo demee ba nekk ci aussi nga nekk prospectif prospectif mooy nga xool ëllëg walla gannaaw ëllëg lan la war mbir mi war a mën a indi sooy wax tubaab nga ne impact mm-hmm. lan la mbir mi nar a impact lan la nar a juri c'est mm-hmm. ça la vision prospective mm-hmm. mais la vision maintenant euh, euh, anticipative mooy jël ay matukaay balaa parce que suñ la nee mbir mi am na Chine te tey jii nu ne suñu dëkk adduna bi yëpp c'est un village planetaire mm-hmm. benn dëkkuwaay rek la par exemple xoolal euh, suñu premier cas importe jógewul Chine mm-hmm. mu ngi jóge France mm-hmm. te pourtant waa Chine même période boobu aussi am na lu ma ci waxoon ma ne leen mais sunuy doom yi nekk bitim réew danoo ne duñ leen jëli parce que nu ngi woon à wante woon dañ leen mettre en quarantaine confinement c'est tout à fait normal. Mm-hmm. ànd naa ci. Mm-hmm. mais nag boobu amoon na ay chinois yuy jóge ci yeneen réewu chinois yu doon ñëw ci biir Sénégal bi ma ko waxee noonu non non euh, bi rek mooy ki man leen non non épicentre bi am na solo waaye germe bi maanaam euh, coronavirus bi. Mm-hmm. wala chauve suuri bi. wala chameau bi maanaam dromadaire bi. bi nga xamante ni mii ñoom noo waral feebar bi. Hmm. mais ñooñu xamuñu frontière. te mënoo leen ne yemal fi hmm. beneen bi mooy virus bi day naaw est-ce que jaww ji mën nga ne virus bi yemal fii donc euh, c'est tout le territoire de la Chine qui devait être mise en quarantaine nga suspecté leen nga leen képp ku fay jóge di ñëw fii il faut que nous mettre en observation. Hmm. suñ la mettre en observation di nga minimiser waxuma de. waxuma ni du am. Mm-hmm. parce que yàlla rek moo xam. Mm-hmm. naka lay ñëwee ak yooyu mais au moins on aurait minimisé doon nan néewal risque bi c'est-à-dire risque de contamination bi doon nañ ko mën a néewal. bu dee mais mais boobu tey bu dee tey par exemple mm. tey euh, docteur ba Chine kese la woon. Mm-hmm. Euh, bu doon dey da nga jël ay matukaay ci Chine kese. Mm. Euh, ñeneen ñi tamit mën nañu ko dugal Sénégal ndax tey par exemple tey bu dee yaa ngi saytu liy juge Chine. te tey par exemple ay français ñoom ñoo ngi dem Chine ak a ñëw ñoo ngi jugee euh, France dem Chine jóge Chine ñëwaat France wala ñëw Sénégal ñuy jóge Espagne dem Chine ñëwaat Espagne di Sénégal. loolu tamit day am. foofu foofu la ñu déggoowul ma ak yow. Mm-hmm. parce que bëgguma woon sax wax turu Chine. Mm-hmm. bëgguma woon sax waxu turu dëkk pour ne pas stigmatiser. Mm-hmm. parce que soo nee dëkk sangam rek yaa ngi stigmatiser dëkk boobu. mais gis nga nee naa la àdduna bi village planétaire la bi mu nekkee village planetaire mooy nit ñi dañuy tukki bagages yi day dox te nit ñi aussi dañuy wër te virus bi également kenn mënu ko ne yemal fii haute intermédiaire bi nga xam ne mooy chauve-souris bi ak dromadaire bi aussi kenn mënu leen ne yemal fii gis nga bi mu commencé doon nan rey chauve-souris doon nan rey également kii nuy naan gars yi ñii dañuy lekk ya dañuy lekk ay jaan moo tax mbir mi dal leen mais nun comme duñu lekk jaan yàlla mën na ci musal loolu déggoon nga lool. Mm-hmm. mais nunu waruñu woon tere rek ñi jóge Chine di ñëw déedéet waruñu tere ñi jóge France wala ñoom Italie di ñëw déedéet dès lors que aéroport bi tëjuñu ko woon dama ne képp ku jóge bitim réew di ñëw même su fekkente ne sénégalais nga mhm. jóge woon bitim réew di ñibbi ci si réew mi am na ay matukaay yu nu waroon jël ba nga xamante ne bi nu xool su fekkente ne tu es déjà en contact avec le germe rek nu isole la suñ la isole c'est pour quelque jours quelque jours yooyu observation rek la ñuy def observation mooy téye la ay fan xool sa yaram naka la demee soo développé feebar bi rek nu faj bu boobaa doo du woon am ay contact yu bari xam nga maa ngi lay wax ñetti firnde ñetti mhm. mbir. Mhm. xam nga maa ngi lay naan cas importe mhm. nu ngi lay naan cas contact. ba tey jii nu ngi lay naan cas communautaire. gis nga suñ duggee ci cas communautaire bi di nga gis foofu la gën a affaire bi gën a grave sax. ci cas communautaire. parce que cas importé léegi mënatul am. su weesoo par exemple yi nu am ba pare. Mm, te ñu berleen te ñu berleen parce que gis nga euh, gouvernement Sénégal. identifié na mille cinq cent soixante personnes. yóbbu leen ci ay ay hôtel. denc leen foofu pour pourquoi yóbbuwul leen hôpital xam nga leen leen hôpital parce que ñii wóoragul ne am nan contact bi. donc wóoragul ne feebar nan suñu feebaroon rek nu yóbbu leen hôpital. mais fi ñu leen yóbbu c'est pour les mettre en observation. d'accord léegi docteur dama bëgg tamit. am tuuti nag loo xamante ni tey euh, peut-être dina leer ci sama bopp leer ci bopp ñuy déglu yow ñii nga wax ne tey par exemple ay mille et quelques. mille cinq cent soixante. mille cinq cent. soixante euh, maanaam dañu leen a. Hmm. ber. waaw pour ñaata jours. non. pour chaque jour ñu xool leen. non mënuloo wax chaque euh, mënuloo wax le nombre de jours xam nga lu la mën a wax. nu ngi foofu. nu ngi leen di jël au fur et à mesure et suivant la capacité et la possibilité des tests. yaa ngi dégg par exemple ministre wala son directeur de cabinet su génne. Mhm. mu ne la tey def nañ temps de tests temps son négatif temps son positifs. te faj nañ également temps de personne xam nga résultat boobu mais mais mais euh, test bi day xanaa dafay jël temps. Euh, kooku nag euh, su ma ci waxee wax naka su dul noonu. Mhm. parce que du sama métier. du sa parce que jusqu'ici institut Pasteur moom moo koy liggéey. te mhm. institut Pasteur presque moo fi toogal euh, daf fi toogal organisation mondiale mais en même temps euh, toogal fi presque Afrique yëpp. Mhm. donc mais ñi ñu testé bu ñu xoolee ne ñii am nañ ko ñi amuñu ko après ñu bàyyi ñi dem. mais ñi amul. waaw ñu bàyyi la ñu dem. mais ñi amul amatuñu benn firnde. pour téye leen foofu amatuñu benn motif pour téye leen. d'accord suñu la nee kii. Mhm. danoo yaakaaroon. parce que ñi ñu téye foofu yëpp yaakaar la. mille cinq cent soixante. danoo nekkoon en contact. avec ku amee jàngoro ji ñi amoon jàngoro donc c'est une supposition yaakaar na ne ñi am nañ ko mhm. donc ñii nañ leen ber mhm. beru ndëgëndiku mhm. di xool ndànk-ndànk kan moo ci am ak kan moo ci amul mais képp koo xamante ni ki am na ci nu yóbbu la directement ci équipe bu Moussa Seydi maladie infectieuse pour nga dem faju ci wala nu yóbbu la à Touba wala nu yóbbu la ci yeneen Euh, secteurs yi nga xamante ne bi euh, créer nañ fa des unités de prise en charge suñ la fa yóbboo nu faj la foofu mais su fekkente nag xool nan ni yow mii nekk goo ak doomu jàngoro bi mais bu boobaa d'accord amatul droit tey la docteur sànq yaa ngi doon wax ci euh, mbirum fagaru ak li nga xalaat ne moom la nguur gi waroon na avant que jàngoro ji di si ñëw maanaam mooy matukaay yi. wax nga tamit euh, mbir mi bu accès lan mooy yaa ngi war nga xalaat impact bi lan la mën a jur ëllëg yow si sa xalaat est-ce que tey gouvernement bu Sénégal euh, matu est-ce que risque bi nga xamante ni tey doomu jàngoro bi mën na koo def ci réew yépp ndax yow jàpp nga ne. gouvernement bi ñoom xam nañ loolu wala jàpp nga ne ñoo ngi dox doxin woo xamante ni war nga ko méngaleel ne ñoom xam nañ danger bi mu am. Euh, li may njëkk wax mooy nguur gi déjà su fekkente ne yàlla rek moo tax may wax nguur gi wër na ndombo feebar bi. mooy jekku na feebar bi jekku nañ ko wër nañ ko ndombo xam nga lu tax ma ne wër nañ ko ndombo. Mm-hmm. lépp lu ñu yaakaaroon kaa contact. lépp lu ñu yaakaaroon kaa contact identifier nañ ko ba isolé nañ ko première mesure. la deuxième mesure mooy gouvernement bi jël na ay mesures yoo xamante ne loolu la des mesures draconiennes yu dégg jéggi dayo par exemple gis nga lii nu def euh, couvre-feu bi nu def couvre feur bi c'est un confinement partiel gis nga li xew France gis nga li xew Italie gis nga li xew Espagne gis nga li xew euh, États-Unis te njëkkoon ko xew à à en Chine su fekkonte ne jëlul mesures yi mais mënoon na fi ñëw xam nga dama la ne contagion bi dafa gaaw tellement que soo jegee nit ki rek à un mètre mën na la jox jàngoro xalaatal su fekkonte ne jëlunu mesure yi ci car rapide yi ci grand place yi ci réunion yi wala ci biir kër yi newoon nit yem leen seen kër nu continuer ci suñuy réunion continuer suñuy rencontre continuer ci suñuy euh, habitude yu ñu yore woon feebar day gën a. Ah, day gën a mais euh, mais tamit yow euh, wax nga ne euh, dañ ko war ndomba ak mesures yi ñu jël. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tamit tey euh, man am naa tiitaange ci cas euh, transmission communautaire yi nga xamante ni tey ministre bi ma ngi koy wax. mais à juste raison. Mm-hmm. sànq nee naa la. su weesoo cas importe yi. te kooku wax dëgg yàlla comme frontière yi tëj tëj nañ ko. am nañ yaakaar ne dootuñu am cas importé. su weesoo li nu am déjà. parce que kenn mënatul jóge bitim réew ñëw. kon cas importé féete na boor. cas mhm. contact ñi nekk en contact ak cas yooyu yëpp dañ leen tuddee cas contact c'est-à-dire que. da laale ak ki am euh, exactement ko je termine mhm. léegi nag damay ñëw ci cas communautaire bi nga wax. cas mhm. communautaire bi mooy poo xamante ne bi nit ki dafa feebar feebaru Covid 19 bi te coronavirus waral ko te gisuñu foo xamante ne fii jege na ku ko am loolu mooy kàk communautaire xam nga kooku kooku jar na tiit mhm. kooku nga xamante ni bii mu ngi développé feebar bi te xa gisuñu ki mu jege. xamuñu ki ko xamuñu waaw mais moom ñi mu a sol ak ñi mu joteel ak ñëpp bari nan mhm. te ñooñu. comme jege woon nañ ko. ñooñu aussi ay ay ay cas la ñuy doon. Mm-hmm. te ñooñu mënoo leen identifier ñoom ñëpp. Mm-hmm. imaginel tey man bi may ñëw fii ma tase woon ak kenn koo xamante ni ki am na ko. Mm-hmm. xam nga kon wàll na ma ko. man léegi ñaata nit laa taseel ñaata nit laa nuyantool ñaata nit laa waxal avant ma yegg si fi. mais du caagi ne koo nuyoon koo waxal mën na ko wàll aussi. dan la ne mën nga ko wàll comme mën nga ko bañ a wàll c'est-à-dire cas suspect lay doon. cas suspect lay doon gis nga ñi ñooñu wax les mille cinq cent soixante là mais ñooñu ñëpp feebarunu danoo yaakaar ni rek comme jege woon nañu koo xam ni ki am na feebar bi mais war nan war nan am doomu jàngoro mais kon xam nga ne euh, mille cinq cent soixante yi est-ce que kon xam nga ne tey su dee tey ministre bi nee na am nañu benn cas transmission communautaire est-ce que xam nga ne kon mille cinq cent soixante yi day yokk mais bien sûr moom laa lay wax mooy mooy tontu bi ma la tontu sànq dama la ne suñu demee ba nuy wax ay cas communautaire waxatuñu léegi cas contact waxatuñu léegi cas euh, importé mais ça devient grave parce que am na ñoo xamante ne ñi amee nañ ko te identifié wu xamuñu ñan la mhm. te ñooñu dañoo am possibilité walla ñeneen ñoo xamante ni nit ñi duñ leen ràññee kon kay jekku gi nag des na nag professeur yow docteur euh, si si su ma la nee jekku nañ ko rek c'est parce que déjà def nañ loolu tubaab di wax benchmarking c'est-à-dire jàng nañ jàng nañ ci ñeneen yi yeneen réew yi ñi ñi ni Chine def. ni mm-hmm. Chine def ba maîtriser eh, Covid 19 bi en Chine te foofu moo gënoon metti mm-hmm. nun presque jàng nañ ci seeni erreur li xew France li xew Italie li xew bitim réew également jàng nañ ko ma jox la benn misaal. Mm-hmm. bës bu yàlla sàkk soo jàppee rajo bi wala télé bi dan lay nan Italie tant de mort France tant de mort Amérique tant de mort Burkina Faso tant de mort mais nun Sénégal nu ngi ci presque cent cent douze wala cent dix sept cas. Mm-hmm. cent trente cas. cent trente cas pour ci tey. Mm-hmm. mais ay guérison rek ngay dégg. tey am nañ sept. sept ñu wér. sept ñu wér démb cinq la woon tey sept. ñu wér mais dégg goo fi ku dee. te gis nga également le professeur Moussa Seydi. ak équipe fa la ci maladie infectieuse. mais guddi ak bëccëg. Ah, mais amatul une vie de famille. guddi ak bëccëg mu ngi ci te mu ngi diggante Touba Dakar ak feneen ak feneen di daw di ñëw kon su ma la nee. wër nañ ko ndomb je touche du bois yàlla na ko yàlla léegi léegi léegi docteur est-ce que tey par exemple tey euh, am na ñu ay médecins yoo xamante ni tey bëri nañ comme ni nga wax tuddee sànq euh, professeur Moussa Seydi ñoo xamante ni tey est-ce que jàpp ne am nañ ay téeméeri téeméer wala ay junni junni euh, professeur Moussa Seydi Sénégal jamono ji soo jëlee médecin yëpp hmm. am nga sànq ba léegi yaa ngi may wax docteur waaw man du ma médecin hmm. <laughs> moi je suis politiste hmm. suñu la nee politiste mooy docteur en sciences politiques docteur en sciences en sciences politiques mhm. ma nekk administrateur hospitalier mhm. mais avant ça mhm. ma nekkoon également un technicien de la santé mais le médecin mooy ki nga xamante ni kii day faj soo dajalee médecin au Sénégal yëpp motu nu mil motu te médecin laa la wax de médecin waaw waaw alors que feebar bi c'est une maladie virale c'est des virologues ak ay infectiologues ñoom la parce que soo nee virologue wala infectiologue ñooñu ay spécialiste mu ngi mel nga ne pédiatre wala nga ne cardiologue. mais est-ce que Sénégal am na ay spécialistes yu bari ci ñooñu. Euh, su fekkente ne dëgg la ñuy wax. waaw wuñ ko. lu néew la ci Sénégal. léegi loolu lan moo war a nekk njàngat bi. njàngat bi mooy euh, nanu gën a développer la formation bés boo xamante bi yàlla jël jële na fi feebar bi jëlee na fi feebar bi. il faut que système de santé bi yëpp waxuma waxuma virologie rek ak infectiologie rek dama ne kooku wax naa ko sax avant coronavirus di am bind na ak ci téere bind na ay téere mais gis nga benn téere bi xam nga lan laa conclure mm-hmm. il faut que système de santé bi ci boppam nu tas ko tasar tabaxaat ko parce que baaxul il faut également que sunu hôpitaux yi nu xoolaat doxilinam fexe ba hôpital bi nekk eh, eh, jubluwaayu nit ñi fekk nit ki fay dem du am ay tiitaange parce que tey jii koo ne maa ngi dem hôpital rek mu ngi lay tiital parce que eh, hôpitaux yi aussi dafa am jéggi na doyo seen image dafa yàqu. mais bien sûr yow ci sa bopp xam nga li ma lay wax su ma la ne suñ la ne les hôpitaux sont malades hôpital yi am nan ay jafe-jafe système de santé bi am nañ benn système de santé boo xamante ne bi euh, organisation bi baax na mais doxalin bi baaxut. d'accord léegi euh, ñu ñëw tuuti ci euh, fi nga xamante ni tey mooy du boddi du du dara mais Italie ña fay faatu démb presque mën nañu mille lan nga jàpp ne moo tax Italie faat gi mu bari foofu. waaw xam nga feebar feebar ñaari niveau la surtout nag suñu la waxee épidémie wala ñu la pandémie dafa am ñaari niveau benn niveau bi mooy la prise en charge médicale prise en charge médicale mooy faj bi te ñëpp d'accord na ni ba fii may wax ak yow lii faj coronavirus gisagun ko wala homologué gun ko vaccin bi également la nga xamante ne ni balaa nit ki di feebar da nga ko koy ñàkk yaa ngi fàttaliku ay ñàkku tuberculose ñàkku yeneen ak yeneen ak mhm. polio ak yooyu mhm. nu ñàkk la pour que sa yaram mën ko résister mën a résister su fekkente ne germe infectieux bi dugg na ci yow. technique d'immunisation boobu amagul parce que vaccin bi amuñu ko. kon gis nga muy ces deux niveaux la ba tax na nu ngi faj ay nit mais faj bi comme ni ko Moussa di waxee le professeur c'est des traitement symptomatiques xam nga feebar mi naka lay ji feeñee euh, yaram buy tàng. sëqët soj tisóoli ak ak yu ni demee ñu ne léegi faj bi c'est un traitement symptomatique c'est-à-dire signe bu génn rek nu faj ko signe bu génn rek nu faj ko maanaam le traitement approprié traitement ba nga xamante ni bii faj ba nga xamante ni moom moo war a faj feebar bi gisaguñ ko. mais dañu wax ne Italie euh, dañoo nekk benn euh, réew boo xamante ni bu vieille la boo xam ne dafa bëri ay mag te nee nañ feebar bi ay mag la gën a mën a sonal. xam nga bu njëkk ba dès le départ bi muy génn en Italie bi muy génn en Chine lan la ne woon feebar bi mag ñi rek lay dal. Mm-hmm. te joomu jàngoro bi également mënul résister au au au euh, en dehors de trente degré mm-hmm. su weesoo trente degré rek day dee. Mm-hmm. mais tey jii. mu ngi rey ay ay liir mu ngi rey ay waxambaane mu ngi rey ñeneen ñoo xam ne duñu ay màgget mais soo gisee nag màgget bi nu ciblé ko c'est parce que Covid 19 bi moom feebaru complice la. xam nga lan mooy feebaru complice. mooy lan feebaru complice mooy day fekk koo xamante ni kii yaramam dafa sutante woon ba pare mu ñëw doggali ko xam nga mag ñi. Mhm. ñu mel ni man par exemple. jabet euh, bi. tension bi insuffisance rénale bi ak yeneen feeru mag yi dafa yomb feeñ ci ñoom mm-hmm. su fekkee ne am nga feebar yu mel noonu day fekk sa yaram aussi affaibliru mm-hmm. say défense mm-hmm. c'est-à-dire les défenses naturelles de l'organisme yooyu aussi affaibliru su fekkente ne dugg nga guerre par exemple mu amoon guerre nga dugg ci réew boo xamante ni bi soldats yi préparé wuñ leen wala soldats yi danoo feebar wala soldaar yi dañoo néew doole. Mm-hmm. waaw soo yegsee nooy def da nga yegsee rek bombardé yëpp jàll. Mm-hmm. feebaru coronavirus également exactement noonu la deme c'est-à-dire que soo déggee mu ne mag yi la yëpp c'est parce que mag ñi. Mm-hmm. seen organisme déjà si affaibli. par de maladies yoo xamante ni invalidantes comme ni ko d'accord euh, docteur Amadou Ba waxtu bi cinq minutes moo si des. Oh. léegi lu jëm ci euh, Nivaquine. bi ñuy wax chloroquine. kane euh, jàpp nañ ne daal bokk na si li mën a faj euh, coronavirus lan moo ci sa xalaat. Euh, mënuma ci joxe sama xalaat parce que c'est un débat scientifique ki nga xamante ni kii génne na ko nit la koo xamante ni yàlla may na ko ci lépp lu jëm ci affaire virologie nit la koo xamante ni kii également yàgg na ci liggéey yàgg na ci daan dooleem te nit la koo xamante ni gëstoom yëpp ci lool rek la koy def te moom ci boppam nee na testé na mbir mi te mbir mi mu ngi faj te faj na ci ay nit bi mu defee test yi nag mu déclaré ko mu am ñu taxaw nu ni même su fekkente ne dañ koy def nun ànduñu ci ak yow xam kon am na beneen problème même su fekkente ne dañ koy appliquer gis nga professeur Moussa Seydi nee na moom mu koy appliquer en France ñi ko njëkk a weddi tey signé nañ benn décret pour di ko appliquer maanaam di fajee maladie. Euh, euh produit ou la, la chloroquine encore que c'est pas de la chloroquine proprement dit c'est-à-dire base médicament bi c'est de la chloroquine chloroquine paludisme la doon faj paludisme c'est pas une maladie virale mais c'est plutôt une maladie parasitaire xam nga sànq wax naa la mhm. ñeenti façon doomu jàngoro la am mhm. paludisme li koy waral mooy le plasmodium plasmodium du virus mais c'est plutôt un parasite euh, coronavirus moom virus la mais fekkente ne nag moom la professeur émérite adduna bi yëpp d'accord ne kàngam la ci mbir mi mais nag li ci des mooy lépp luy jëm ci doomu aadama luy faj parce que garab poison la garab boo gis nag ci àdduna poison la su néewee dootul faj su ëppee day reye garab boo gis nag bëgguma citer ay ay ay spécialistes mais garab boo gis rek poison la su fekkente ne yem nga ci juste millier bi ci dose bi nga xamante ni moom la la sa docteur sant soo ko jëlee nga wér mais soo jëlee la nga xamante ni dafa néew du faj te day permettre sa organisme mu am résistance résistance mooy à force nga koy jël dina am bis nga jël ko te du la faj. d'accord mais est-ce que kon xel mën naa dal ci li nga xamante ni professeur euh, di Raoul wax na ko ak professeur Moussa Seydi te ñoom ñaar nit ñi àdduna bi yëpp xam ne ñii ay kàngam lañ ci loolu. mais comme France moo dem ba jël décret. Mhm. ñoom ñi ko weddi woon. noo dem ba jël décret d'accord ci. kon war nga xam ne euh, ci kanam la jëm seulement xam nga la ma doon wax ne c'est un domaine scientifique c'est-à-dire que lépp luy jëm ci doomu aadama ci yaram. dañ koy càmbar du nit ki wax na rek nu d'accord ci gis nga li des mooy nu def ko ay test dans le long terme ba organisation mondiale de la santé homologué ko. mu doon officiel oh, waaw mu doon officiel. gis nga soo demee ci pharmacie yi dañ lay naan garab boo gis dafay am lu ñu tuddee AMC autorisation de mise en circulation garab bi suñ ko demee ba génne ko ba teg ko. il faut mu am benn autorisation boo xamante ne bi dañ lay dañ lay jox ndigal pour nga mettre ko dans le marché nit ñi pharmacie di ko jaay nit ñi di ko jëfandikoo. d'accord léegi euh, lan ngay tàggoo docteur ak sensibilisation askan bi. Euh, pour tàggoo damay naan nit ñi d'abord nañu discipliné wu gis nga doomu aadama lu ko discipline mayul indiscipline du ko may discipline mooy nga jël sa bopp nga jël sa bopp nga gënale ko ñëpp c'est pas de l'égoïsme sama bopp ma la gënal du bañ naa la maanaam suñ la nee lii day reyee nga moytu ko suñ la nee lii baaxul nga moytu ko suñ la nee liikat baax na ci sa wér yaram nga jël ko loolu mooy bëgg sa bopp am na beneen aspect boo xamante ne bi également euh, suñ la nee couvre-feu vingt heures six heures du matin mais dana la ne demal noppalu sa kër soo liggéeyee ba wàcc da nga war a noppalu encore que feebar bi xam nga ñan lay gën a dal. Mhm. ñi gën a sonn xam nga nee naa la sànq organisme bu fatigué bu affaibliru moom mooy permettre virus bi gaaw a développé wu mais soo noppaloo soo lekkee lekk bu baax. maanaam une alimentation équilibrée nga am un repos nga am un sommeil tranquille mais mën nga am chance mën nga am chance yàlla muccal la ci feebar bi. jërëjëf waaw jërëjëf euh, docteur Amadou Ba moom nag euh, mbokk yi mu nekk euh, fonctionnaire à la retraite ancien directeur d'hôpital ba pare nekk correspondant du REFIPS en Afrique ñu koy sant bu baax a baax di këram ci waxtaan bi kon Abdou Khadre moo nekkoon ci micro bi Adama ci wàllu technique bi yéen a ngi doon déglu seen émission pencum réew mi ba samedi bii di ñëw incha allah ci beneen jotaay jërë ngeen jëf.